c'est la référence. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi safoo di ànd ak Alfayda FM kaddu gi di bàyyi ko ci immeuble Cheikh Imam Assane Cissé fii ci dëkk sell bi di Medina Baye dal leen ak jàmm ma jukki li gën a ci bopp xibaar yi justice Sénégal nag di jël ay vacances ci noppaleku nag gu gàtt bu ñu ca noppee nag dañuy dellu si waat tàmbaliwaat seen pa liggéey ñu ngi démb nag ca chambre criminelle TGI bu Kaolack nag dossier yi nga xam ne moom lañ fa doon àttee daal dinañ koy dàq ba fukki fan juróom-ñaar ci weerum yi ñeewal nag ñi nga xam ne ñoom nañu tegoon loxo ne daal laalee nañ ci faatub Mouhamed américain mi nga xamante ne bii ay samba boy la ñu ne ñoo songoon seenub kër ba moom mu jaaree fa daal di faatu dañ ca dikk ak nday faatu Cissé ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllum xorom a a Cheikh Tidiane Diagne lang gi nag mu ngi wéy ba léegi ay ndaje yaa ngi am eh, ci wàllub nguur gi nag ilimaanu jëwriñ yi tamit nag mu ngi di amal ay kaddu ña faytee ca wet wa itam nag ku nekk yaa ngay wax sab kaddu ci tolluwaayu réew mi ak li nga bëgg ci biir réew mi waaye ca beneen wet wa ki nga xamante ne moo di Bougane Gueye Dany ma ñu tegoon loxo yoon teggeegul loxoom ba léegi rek ci kaw Bougane moomu leen ni ngi démb sax la doon janoo ak ñi nga xam ne ñoo di attekat ya foofu leen ca tribunal bu Tambacounda la tukkee ca wàllu Bougane Gueye Dany boobu lee daañ ca dikk ci biir xibaar yi buñ ca noppee daañ ca toftal xibaaru biti réew ak Alioune Badara Diop tàggat yaram ak Serigne Moussa Kandar keppale ko li ci yéene kaay ak Seydina Omar Cissé mbokk yi bokk ci li fi nar a ci ay xibaar ngeen taaxilu tuuti ma dugg ak yéen ci yaatal wekk faram fàccee bi gannaaw bàkk bi lay doon.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 Cissé dañu ko daal di dàq ba fukki fan ak juróom-ñaar eh, ci weerum eh, décembre ca dossier yooyu lee nag bokk na ca eh, wàllub nag li nga xamante ne bii moo di faatu Mouhamed américain mi nga xam ne dañoo songoon biir këram mu daal di amoon jàmmarloo ak ñooñu ba ñu daal di koy faat waaye ca mbir moomu lee ñu sa teg loxo atte woo ba léegi nii daal di wut wëy ndax bokk na ca ñi nga xamante ne bii dañoo mujjee puusandi seenu pa atte nday faatu Cissé lañu cay àndal. Sénégal justice di jël ay vacances at bu ne lu ko dalee benn fan ci weeru août ba fanweeri fan ak benn ci weeru octobre ngir permettre ci diir boobee ba ñuy liggéeyee ci secteur yoon ku ne ak fa nga faree mën a jël say congé waaye organiser ko nag ba liggéey ba du taxaw ñàkk taxaw googee di ànd ak daagu gu mat sëkk ndax daam justice nag noonee lay doxee diirub vacances judiciaires yi waral ba ña koy soxla ni ay justiciable dañu koy yëg bu baax ci fànn yu bari te wutee démb talaata ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre juróom-ñaari accusé woon ca maison de correction bu taxaw ca kanamu àtteekat yu chambre criminelle bu TGI bu Kaolack euh, mujjee dellu ca bërëb boobee te àtte wuñu leen naka noonu itam ay témoins ak i partie civile euh, yu nu convoqué woon ngir ñu mën leen a déglu ci ay dossier ndax kon ay motif de renvoi yu bërëbu àtteekaay ba bérél la euh, ci ay dossier yu nekkul kon en état d'être jugé mbir ya ca des waral na ba mënuñu ko woon a àtte ca juróomi dossier yooyee kon soxaloon juróom-ñaari accusé bokk na ci ba la jàmm gaañu gaañu yamu ca jëlee moom ndaw lii di Mohamed américain atum 2020 file ci Kaolack waraloon kon ba mu ñàkk ca bakkanam ñaari accusé yi nga xam ne nag tegoon nañu leen loxo ca enquête ba te ay soupçon nekk ci ne dañoo bokk ci gàngoor googee démb chambre criminelle bi waroon na leen déglu saytu mbir ma ngir mën caa àddu gannaaw ñaari renvoi démb kon ñu mujjee kaa dàq waajuram wu góor chambre criminelle bi ne amagul benn firne buy wane ni jot na convocation bi waral ba mu mën a taxaw ni partie civile la Euh, mbir boobee am ay témoins yu bari ci ab liste bu ëpp fukki nit te euh, témoins yooyee nag ñu ëpp ci ñoom euh, ñaari weer yi la ci ginnaaw saa bu ñu leen convoqué ñoom daañu ñëw démb kon bërëbu àtteekaay ba daal di mujjee dàqaat mbir bu ni mel ba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre bi ñu dëgmal la di date boo xam ne nag war nañu ca àtte yeneen i dossier yu soxal yeneen i accusé ci wàllu bu àtte sax la ñuy desandi mu jëm nag ci jàpp Bougane Gueye Dany doon daal di janoo ak àttekat ya foofulee ca tribunal bu Tambacounda li nga xamante ne moo fa daal di tukkee maître El Hadj Diouf la ñu cay teewlu. naa ngi nekk néeg bu yàgg lool. procureur mujj nañu oo ni day tëj président Bougane Gueye Dany jox na ko mandat dépôt di koy jugé flagrant délit le 30 octobre bii di ñëw. ñu ne ko fan nga ko teg mu ne la ñu waxoon rek ni dañ ne ko randul président Diall loolu amul mais da koy topp loolu. rébellion boo xam ne amul parce que Bougane moo ne jàpp leen ma comme bugg leen ma dox jëm ak kooku yëkkati ñaari loxoom kooku amul rébellion tey nag yokk nañ ci beneen leneen nee nañ dafa outragé dafa tooñ benn agent des forces de sécurité du wax ñu ban agent cest à daal affaire bi dafa reeloo bëgg nañoon te Bougane téye nañ Bougane benn clé pour wane moom ni ñu ko agressé ba xotti ay président jaaru fa jaaraanu loolu yëpp ay lay woon tey moom wóor na li ñu bëggoon mooy téye ko téye nañ mais nag téye ni ko gum la ndax le 30 président mooy atte mooy keneen koo xam nekkul procureur comme ni ngeen xamee état bi nga xam ni dafa am kilifa boo xam ni mooy ministre de la justice ministre de la kilifa bu ñuy wax premier ministre kon procureur moom def na xëy la li nga xam ni moom la xalaat mooy tëj Bougane mais président bi war a attiré 30 ko xam ni dafa dépendre ci ministre de la justice wala mu dépendre ci premier ministre kon kooku bu ñu jëmee le 30 gëm naa ni comme dossier bi dara nekku ci dinañ bàyyi Bougane xam naa dina tardé campagne mais mu campagne Euh, Barthélémy Dias it teewoon nag euh, ca tribunal bu Tamba ngir nag euh, lu jëm ci mbirub Bougane Gueye mi nga xamante ne bi ñoom ñoo bokk coalition mu yëkkati fa nag ay kaddu ak ñamu fay joxoñ baaraam kaddoom la ñu fay teewlu. ma nekk fii di commenter décision procureur du Tambacounda. parce que procureur du Tambacounda jëlul décision décision bi mi ngi bàyyeeku ci Mimi. Mimi mooy ku moo leen doon wax semaine dernière mooy ku dul wax dëgg. tubaab di mooy ku xamut dara incompétent mooy kuy dóor marteau tubaab di ko woy manipulateur mooy ku incapable wala sax di ko woy ku tële kon nag mbokk yi lu fi am tey ñëpp xam nañ ko daanaka yokkaat nañ beneen chef d'inculpation nee nañu ba ñu paree ci refus d'obtempérer ñu daal wax naan Bougane dañ koy topp ci outrage agent yéen ñëpp gis ngeen vidéo yi. bu ñu bàyyeekoo ca Tamba rek dañuy daal di ñëw ci diwaan bu Latmingué ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy liggéey ci xorom si nag amal pa ñaxtu euh, ci nag li nga xamante ne bii moom lañ leen bëgg a xañ mu di seenu pa liggéey boobule te ñu ne nag seenu pa maire ba daal moo fas yéene jël seenu toolu xorom yooyu lee jébbal ko ñoo xam ne sax dëkkuñu ci réew mi nangu it tamit nag seen ay suuf euh, tax i ay kaddu ngir addu daal di cay am Cheikh Tidiane Diagne lañu cay àndal. ñi yëngatu ci wàll ko xorom gi féete fi nga xamante ne moo di ca commune bu Latmingué jamono ji nag seen bopp ubbu na gannaaw xibaar bi nga xamante ne moo bàyyeekoo ci bokk moomeel bi ñu ne nag dafa fa yéenee jël 700 hectares daal di koy jébbal ñoo xamante ne dëkkuñu ci réew mi jaay seen suuf si ba noppi nangu seeni i bërëbu liggéeyekaay li nag di ay kàddu yoo xamante ne askan wi ñoo ko jibal gannaaw bi ñu gisee ne daal docteur Macoumba Diouf maire bi fekk baax ci gox bi ni mel dogu na ngir def fa jëf joojee lii nag moo tax ñoom ñu ne du ci dal Cheikh Diouf kenn la ci producteur de sel yi fekk baax ci lan menge. ñun nag amuñ dara lu dul ñu géej gi. parce que def ne buñ koy dagg. tool bu ci ne dañ koy jël dédommagé bopp boromam maanaam dugal la ci biir jël la comme contrat te ñun loolu bugguñu ko tey bugguñu ko parce que moom dem na ba wax ne borom dëkk bi yëg mu joomaay comme moom moo ne bu yeboo joomaay dégg ko ñun itam na ko joomaay dégg lu ñu yoon may ñu xam ne loolu la parce que li tax li ma lay xamal ni de bàyyi a à ci kat li fiy dund ci xorom si mot na ñetti junni nit ëpp na waaw léegi nag teranga boobu te man xam naa ne indien bi ñu fi installé ak seen matériel jigéen sax dootu fa jege même nag dootul jege foofu noonu léegi nag ñun comme doomu gox gi lañ il faut ñu jóg jël suñu matuwaay xeex ko man de amul lu ma jaralul fanweeri at la ñu def ci barab bi ni mel lépp loo xamante ne dëppoo na seen diggante ak bokk moomeel bi ci wàll ko pay ñu ne ñu ngi koy amal la waaye daal dafa mel ni yëf yi fi mu ne day nuru kumba mu am ndey ak kumba mu amul ndey te alerte nañ leen te it li may wax dama bëgg sax joomaay dégg ko mu ñëw àtte ñu fii ci Latmingué parce que dafa am loo xamante ne dafa yomb pôle urbain woon loolu waxatuñ ko léegi mu naan day ñëwaat jëlaat fii di une délibération de 700 hectares pour lan d'accord tey d'accord ñu ci ëllëg mairie bi bu naree jël suñu suuf ak barab yi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee lu mu ko jaral jaral nañu lu ko ëpp lii di kaddu yoo xamante ne baykatu xorom yi yëkkati nañu ko ci seen jano bi ñu doon amal ak taskatu xibaar yi parce que fii def nañ fi fanweeri at yoo xamante ne ñu ngi xorom bi fii nii fanweeri at def nañ ko fii nii fii toll na san suma rakk bi ñuy wax Ousmane rek moo fi doon am xorom amul keneen ku fi doon am xorom dul moom ñu nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci ñu ko te amul lum ñu jaralul li ñu bëgg nag mooy docteur Macoumba Diouf daal di dellu gannaaw ci dogal bi nu mel nu mu gën a gaawee ndax bu jëlee 700 hectares day jébbal ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo di indien yi mën naa indi ñàkkum xëy mu tar ci gox bi nu mel waaye tamit phénomène u barça wala barsàq gi nga xamante ne ñu ngi koy dégg daal di tàmbali ci gox bi nga xamante ne amu fi woon Latmingué nekk ci département bu Kaolack di ab commune bu takkee dëkk yu baree bari ñu ràññee fi tamit mbayum xorom si fanweeri at ak tay jile fi mu ne nag dafa mel ni jàmm gàddaay na ci diggante baykatu xorom si ak bokk momeel bi Penda Sankharé nag ca xorom sa ca Latmingué lay liggéey la muy xam ne daal mooy du ñu nangu mukk daal seen maire bi di ma Macoumba juuf daal di leen xàññ li nga xamante ne bii moo di seenub teraanga di uñi seenub sutura ci seenub liggéey googu li nga xam ne si nañu dundalee seenub njaboot kàddoom Cheikh Tidiane Diagne moo ko taataan. toolu xorom bi dëgg yàlla fi mu toll nii jigéen ñi ci la ñuy sutural dëgg dëxin yàlla bu ñu waxul fen dëgg bu ñuy wax toolu xorom yi ba mu duggee diggante koy laal kertaay bi campement caawaando jigéen yëpp ci seen sutura lañ ne benn jigéen xeexatul ak jëkkëram jox ma ma mottali dépense ndax xorom bi soo xëyee da nga dem liggéey ba mi di jot ñu fay la sa xaalis sa poos diis nga kontaan yeeg si am jàmm waxtaan ak sa jëkkër toggal ko ba mu neex tegal ko jàmm am waay waay waay waay waay fii mu ne ne nag Makumba Juum moom buntu bu ñu bëgg a dugal duñ ko nangu suñ sutura bu mu bëgg a nangu suñ loxo duñ ko nangu boo juree doom même bu dee fukki nit bu ngeen demee da ngeen liggéey ci xorom bi tey sa dërëm yeeg si sutura googu nag mu bugg a xuñ ñi nag moom boo nee suñ jëkkër ñuy xeex guddi ak bëccëg ndax ci ñàkk duñ ko nangu nañu bàyyee suñu suuf suñ suuf lañ am ñun dox nañ suñu àdduna mais suñ njaboot gi suñ suuf si ñoom la ñuy dawal nañu bàyyee suñu suuf loolu moo ñu metti moo ñu andi tey ñu koy jooytu dañoo bëgg nag président Diomaye dañoo bëgg nga jàppale surtout maa ñun jigéen ñi boo béyee kanja du baax boo géyee tamaate du baax leneen loo mun tabee du baax mais xorom si wax dëgg yàlla mbokk yàlla loolu mooy suñu waxtaan tey ah bu ko bàyyiwul du neex ci moom de bu ko bàyyiwul ñun suñu loxo yenu nañ ko yuuxu topp réew mi ba ci joomaay dem taxaw jàkkaarlu moom joomaay waxal ak mbokk ma mu bàyyi ñu suuf ngir yàlla dañuy dox ba buntu pale dañuy dox ba buntu pale ci joomaay yenn suñu loxo yi di yuuxu mu génn ci biti ñu wax ak moom kon nag bàyyi ñu suñu xorom Adama Samb nag moom mooy président liggéeykatu xorom yi nag ci zone centre bi àdduna nag ci mbébétub daal meeru Latmingué bi la te mu nag mu xamle ci na moom jokkoo na ak maire bi kàddoom Cheikh Tidiane Diagne moo ko taataan. man biñ ma yëgalee mbir mi en tant que responsable. oo naa bi fexe ko rencontré. mu confirmé ma ne ma dafa am ay partenaires indiens yu mu bëgg a jox suuf si. suuf nag doo dem Inde am ko doo dem fenn seen dëkk yi am ko. mënuñ am suñ suuf si. mu nekk pour ay génération yi ñëw waxuma sax ñun génération yi ñëw ay sët sëtaatam war naa rus ñu ñëw fekk fi suuf si ñu jox ko ay indien te xorom bi ñuy liggéey indien yi ñoo ñuy concurrencé fépp ci àdduna bi bu ñu ñëwee ba suñ biir daggal leen suuf jox leen ko képp kuy liggéey xorom du waalaat menge rek de mhm. kuy liggéey xorom Sénégal da ngay torox te loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg jaral nañu teg suñu bakkan loolu nag bay boo monsieur le xam ne xeex bi yemut lat menge dinañ ko wasaare fépp Dakar coopérative yëpp bu Fatick ak bu Kaffrine ak bu Kaolack ñëpp dinañ ñëw bokk ci xeex bi jàppale dinañ seeti gouverneur dinañ fexe contacter autorité pour que lii mun nal ni bañ fee am amoon na Fatick ñoo ko xeex ba mu deñ loolu du fi am tey du fi am ëllëg sinon suñ cadavre yi lay jaar doo on à peu près entre Kaolack Kaffrine et Fatick à cinq cent mille tonnes ñooñu bu ñu ñëwee bu fekkee ne dañoo soxla xorom bëgg usine ñu jox leen usine ñoom ñuy jënd suñu xorom bi mais duñ leen jox suuf ñuy béy luñ soxla ci xorom mën nañ leen koo jox parce que fii ñu fiy créé ci ay emploi ci région bi amul benn secteur bu koy créé nit ñi fépp la ñuy jóge di ñëw di liggéey si ñëpp seen teraanga ci la nekk donc nañ ñu laaj xorom ñu jox leen xorom mais jox leen suuf si moom suñ bakkan lañ ci teg du fi am bon le maire bi ñu ko interpellé wax fa dëgg yàlla waxtaan nañ lu mat quatre heures d'or rose timis lañ fa nekk ba vingt trois heures biroom delluwul gannaaw mi ngi ci lim nekkoon ba léegi parce que bon bi ñu waxtaanee ñun def nañu woon bu partenaire yi ñëwatee bu ñuy waxtaan dinañ toog ñun ñëpp mu def transparence mais après dafa dem ci rajo bi di expliquer ne bon moom projet foog mu def ko waa dëkk bi dañ koy fonto te affaire bi du affaire u Latmingué kese affaire yu axlu xorom yëpp la ñun ñëpp ci xorom lañu yaakaar ci la ñuy dund coopérative bu nekk am na plus mille membres on est cinq coopératives au Sénégal nañ bàyyi ñaay bu jaay ñëwee matière première ñu jox leen ko mais suuf moom duñ ko jox étranger. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 juróom-ñeent fukk yu taftal benn ci diwaan bu Kaolack nangaan xarale yi tax ngeen koy teewloo ca biti réew ñu dem ci beneenub xibaar ba léegi nag ñu ngi ci weerub octobre tax naka ba district sanitaire bu Kaolack ci saytu yi nga xamante ne bii da koy amal di ci lëkkaloo ak poste de santé amal na ko ak poste de santé bu Jaleñ ci naka ñu saytu jigéen ñi ci feebar yi nga xamante ne bii moo di cancer ween ak cancer butitu njurukaay saytu boobule Alioune Badara Diop la ñu cay teewlu. comme niñ koy jëmale nag ci doon bëri ci suñu bokk bu sir sanitaire bu Kaolack jot nañu jëmmal nag li nga xam moo di journée bi ñu jagleel nag octobre rose amaloon ci nag consultation ñeel li di cancer du sein ak du col de l'utérus madame Dour Fatou Kane moom mi la nag mu ICP poste santé bu Jalañ. journée bi dépistage du cancer la surtout dépistage du cancer du col et cancer du sein moom la ñuy def ak la vaccination des filles de 9 à 14 ans pour xeex doomu jàngoro cancer zéro cancer au niveau de Jalañ. Ami bu jaleñ na aju ne mbir mi la nag ñëw na ci waxtu bi nga xamante nii ci la ko askan bi soxlaa population bi uyu si nañ ñu bu baax uyu si nañ bu baax a baax vraiment lii moom euh, foog naa ne contentement la ci ñun parce que 5 heures du matin ba léegi femmes yi ñu ngi toog fii di ñoom sax ñoo fi njëkk vraiment te loolu ñu ngi ciy bu baax loolu nag ñu ngi ciy remercier suñu bàjjenu gox yi ñoom tamit def nañ si jéego yu rafet ak suñu relais yi def nañ sensibiliser nañ ci population Kaolack waxuma jaleñ sax mais Kaolack ñëpp uyu si nañ tey jii nii Cheikh Niang moom mi la doon point focal maladie non ci district am su nekkee gis nañ ci ay yoo xamante ni cas d'urgence la su boobaa képp koo xam ne gis nañ ne am nga doomi jàngoro bi war a am nga lenn si lu jëm si feebar bi danañu teg si loxo yi nga xam ne mooy loxo yi gën a wóor gindi la ba nga xam ne di nga mën a faju lu mel noonu loolu moo tax objectif bi nga xam ne am nañ ko atteindre ko d'ici 2030 dañuy wax ne nañu dépister 90 70 n'est-ce pas ay ci lëkkaloo bu am solo bi nga xamante nag district sanitaire bu Kaolack jot na ko am ak poste santé yi bu Jaleñ wante tamit si njàppandalu kuréel gi xam moo di journée de sensibilisation wante tamit de dépistage li nga xam moo di cancer du sein ak col jot a ñàkk xale yu jigéen ñi nga xamante at toll na si juróom-ñeent jàpp fukk at ak ñeent lépp nag ngir kat mun a waajal leen ngir mun a xeex a baax a baax ak jàngoro bi nga xamante ni mu ngi woy def ay ravage si suñu réew di Sénégal Euh, Fatou Kane nag moom mooy ICP ca poste de santé bu Jalañ nag àdduna ci ñàkk yi nga xamante ni bii ñu ngi koy ñakk tuut tànk yi nga xam ne seen atum ngi toll euh, ci juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir nag ñu mën a mag ci moytu euh, feebarub cancer yi lee kàddoom ci waxukaayu Alioune Badara Diop. à l'endroit des filles surtout de 9 à 14 ans mieux vaut ñu def prévention ñu vacciner seen xale yi à temps depuis lors ñu ngi ci octobre rose ñoom ñoo aaye mais tamit Kaolack am nañ seen initiative novembre bleu di dem ci école yi di def la prévention ndax suñu sañoon kenn du am cancer looloo tax lépp luñ mën ñi ngi koy sensibiliser di def prévention bi dañuy wàcc ci au niveau des écoles au niveau des quartiers pour def la prévention xale bi nga xam ne 9 ba 14 ans la su jëlee vaccin bi premier dose bi bu ko jëlee bu toogaatee 6 mois mu jëlaat deuxième dose yàlla dina ko musal ci cancer du col mooy butitu njurukaay bi moo tax ñuy def prévention te xool nañ ne cancer boobu moo gën sonal jigéen ñi a jigéen ñi amuñu woon tous les messages moo taxoon waaye léegi foog naa ne am nañ conscience boobu soo tuddee cancer rek boo wootee dañ lay wuy si sensibilisation bi moom xam nañ ne suñuy bàjjani gox ak suñuy relais lu ñuy def xam nañ ne ñoo leen yebaloon waaye xam nañ ne dox nañ liñ ci war a dox ndaxte population bi wuy nañ nañ buñ gisee cas xam ne war nañ ko toppatoo duñ la dépister rek bàyyi waat la ci nature bi dinañ la bindal kayit teg la ci yoon wi nga war a tegu topp ko ba fam sës ndax lépp luñ la ci mën a jàppalee dinañ la ci jàppale ci kàttanu ak fi nga war a dem yëpp dinañ la ko orienté mais duñu la xool rek gis ne am nga ay signe wala dara ñu daal lay bàyyiwaat ci nature bi ndax loolu mooy développé cancer soo ci teelee jóg loolu fa lay yem moo tax kuñ ci xool gis ci lenn tamit dinañ la bindal kay teg la si yoon fi ñu la war a teg jëlaat sa numéro téléphone di ko suivre ba keroog yàlla di def jaam Cheikh Niang nag moom mooy point focal maladie non transmissible nag ca district sanitaire bu Kaolack àdduna nag ci saytu yi nga xamante ne bii dañu koy amal saa su weerub octobre gile teroo kàddoom Alioune Badara Diop moo ko taataan. lii nag dafa nekk loo xam ne du guléet ndaxte fii euh, dans le cadre maintenant en fait de la lutte contre la maladie euh, dañuy li nga xam ne moom mooy journée de dépistage octobre bu nekk yàlla day def ñuy organiser ay journée de dépistage journée de dépistage yoo xam ne dañ koy def pour xam ne moo di cancer du col de da koy def bu octobre xasee ba jot ñu teg benn planning poste yëpp nga xam ne yéene nañ ko daal di mën a teewlu mën ko organiser ki nga xam ne ne gën a mucc ay tey nag fii ki nga xam ne moo di jëleñ moo ay ñu fi gis alhamdulilah dal na xel ndaxte jigéen ñi génn nañ ñëw wuy si depuis cinq di matin wax dëgg yàlla ñi ngi fi toog di xaarandiku nit ñi war a mën ñëw installé bi alhamdulilah commencé nañ wax dëgg yàlla ñuy refal lu baax a baax seen teewaay ak seen ñëw bi nga xam ne ñëw nañ mu nekk lu am solo ndaxte dans le cadre maintenant si octobre rose bi dañuy def dépistage du cancer du col de mais aussi dañuy def li ñuy wax am ñoo xam ne ñoom la yittee mooy jigéen ñi nga xam ne dañu am lu ëpp fukki at ak ñeent ba jàpp ñeent fukki at ak juróom-ñeent ñooñu la ñuy defal dépistage fii ñaar fukki jigéen yooyu jël si ñoo nga xam dañ leen bëgg nañ juróom-ñeent fukki yi fekkee ne am nañ benn feebar ñu mën a faj faj boo xam nga xam ne moo di prise en charge yi dañ koy wàññi ndaxte au niveau de l'hôpital gis ngeen ne wàññi nañ bu baax a baax li xam moo di mammographie bi

bàjjini gox yi wër nañ def nañ seen liggéey sensibiliser nañ ba nga xam nit ñi wax dëgg am yëg nañ te xam nañ li xew moo tax ñu mën a ñëw teew loolu moo tax dañ leen si loolu baax a baax di souhaiter vraiment une bonne réussite et comme ni ñu ko waxee par rapport ak slogan bi dañu bëgg ne am benn jigéen boo xam danañ ko seet fii mu am li nga xam moo di cancer du col de l'utérus fii si Dialeg mooy zéro de cancer au niveau de Dialeg octobre rose bi nag ak saytu yu am solo yi nga xamante ne dañu ko cay amal ci jigéen ñi ci xeexu xeexub cancer ni ñu koy defee fii ci diwaan bu Kaolack noonu it tamit lañ koy defee ca Ziguinchor Ndeye Marie Sané nag moom mooy coordonnatrice départementale mouvement jigéenu Pastef la ñu cay teewlu. journée bi dañ ko organiser pour sensibiliser suñuy mbokku jigéen ci feebar boo xamante ne mi ngi def ravage feebar boo xamante ne xëy na ñàkk xam moo tax muy rey jigéen ñi xëy na parfois dañuy am kersa pour dem xool seen yaram am na ñoo xamante ne tamit dañoo ragal dem xool seen ñu demee bu ñu leen nee am nga tel maladie rek psychologiquement da leen di affaiblir loolu moo tax tey ñu ne nañ dem ñu ñëw sensibiliser leen au moins ñu waxtaan ak ñoom àndax les techniciens de santé ñu jéem leen a wax feebar bi yan méfe la am ci santé jigéen njiitu réew bi bu ko waxee c'est parce que dafa xam ni maladie la boo xamante ne mi ngi avancé te maladie la boo xamante ne tamit mi ngi def kat ravage te tey jigéen bu feebaree ci kër dafa mel ni kër yëpp feebar donc képp koo xamante ne jóg nga ci saafara jàngoro jigéen wala képp koo xamante ne jóg nga pour jàppale jigéen ci nu mu mënee def ba am wér yaram dañ ko ci sant di ko ci gërëm moo tax tey nag à la réponse de l'appel du président ñu organiser journée bi nii. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point Euh, dugg nañ ca ñaareelu xaaju xibaar yi ñu koy teewloo fépp ci diwaan bu siin Saalum Bawol ba jàpp waalo ñu dem ca beneen pa xibaar ilimaanu jëwriñ yi nag di usmaan Sonko amaloon pa janno euh, di ca jukki nag mbébétub nguur gi ci buntu parti bi li nga xamante ni moo di Pastef euh, ci nag ndam ga nga xam ne moom la ñu bëgg ca assemblée nationale gi nag mën a defar réew mi kàddu ilimaanu jëwriñ yi la ñu ciy teewlu élection boobu nag la ñu dëgmal muy élection bu am solo ndax sénégalais yi am nañ politique bu rëy si ñun te gëm naa ni bu doon benn la dem bu yokku na tey ndax bi ñu toogee ba léegi la ñu taxawee sénégalais yi mooy wax leen dëgg ak jëf dëgg càmbar réew mi wax leen li fi nekk ak liñ fi baax ak niñ ko yàqee te fas yéene it lépp li nga xam ne conséquence la ñu tiire ko mooy ku fi def rek lu defut dañ ko layoo loolu bokk na ci solo sax am majorité bu confortable ci assemblée nationale ndax bëri ñu naan yéex na dafa yéexut waaye dafa yoonu réew mi moo ne am na xeet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 bu nguur gi di jukki seen kàddu opposition bi itam nag ca wet boo ñu ngay amal ñoom it seen ay ndajeeki jano bokk ci Amadou Ba mi nga xamante ne amal na pa jano wax nag ci digganteem ak élimaanu jëwriñ yi di Ousmane Sonko di ca xamle daal ca atub 2017 la gëj a wax ak moom ba suñu jon yàlla tey kàddu Amadou Ba la ñu cay teewlu. li nga may laaj yaa ma ko gën a xam ndax ñu bari taxaw nañ ci télévision bi wala ngeen gis leen ci quartier yi ñuy wax jàppaleetuñu Amadou Ba bokkatuñu Amadou Ba defuñu loolu gis ngeen loolu am li dafay bari loolu mooy li nga xam ni dab nañu boobu ba tey nag maak président Macky Sall waxuñu ci am na it ku ma laaj sama diggante ak Ousmane Sonko gis nga président Macky Sall musul yëkkati kàddu ci benn ndaje wala ñu toog fenn mu tudd Pastef wala mu tudd Sonko te du ma ne Amadou Ba sa xale yi kooku ñu bari dégg nañu. dégg nañu sax maa moom Pastef. wax nañu sax maay financé Pastef. 2017 ak léegi. digaale wu ma ak moom waxuñu. xam naa ko nag bu wér. liggéey nañu. jaxasoo nañu. xam naa ay waay juróom xam naa njabootam. xam naa ko bu baax. ka man sama gis-gis. nit ku nekk war na am loo bàyyi. ginnaaw politique ak lépp. kon d'une part dama nekk ci diggante boo xam ni ña ma nekkaloon lu ñu wax wala lu ñuy seet dañ ma ciy xool donte awma ak ñoom relation di relation bi ñu amoon mooy relation wu liggéey d' accord nañu d' accord ñu ñu yor seen ma nekk directeur général ou bien ma nekk ministre bu ñu xëyee am seen i revendication ñu ñu discuter ci juboo nañu juboowuñu ñu jël arme yi ñu amoon mooy arme syndicat pour mettre la pression ci loolu lañ nekkoon comme ça qu'on a évolué pendant plusieurs plusieurs années secrétaire général syndicat je le voyais presque tous les jours d aussi toog di waxtaan ak man <laughs> ndax daan nañu toog maak moom suba teel ba presque julleendoo waxtu yëpp ba timis ba gée pour discuter xam naa ni yooyu yëpp bokk na ci yoo xam ni xëy na namm na ko bon en tout cas moi awma problème de personne ma xamee ci nit sax lu rafetul rek lu ñaaw ma rus naa ko wax même politique bu ma xamee ci nit wala ma dégg ci nit lu ñaaw yu bare ngi am ci réew mi bu ñu koy wax man dem ko dul sax déglu wala di ko seetaan quand je dis ko je suis pas au courant les gens pensent que yëg nga ko di dof doflu parce que tellement ñëpp a koy kii mais fait loolu mooy jëmale réew mi kanam yoon bi ñu nekk man yoon wi laay wax duma wax ci nit ki yoon wi réew mi moo am ay jafe-jafe te ku jiite réew jànkonteeg ay jafe-jafe loolu mooy dëgg te dina gën a tar waaw dégg ngeen li am tey jii dans le golfe yéen a ngi suivre li am Ukraine mënul bañ am jeexintat fii dégg naa ñuy wax ci situation réew mi jafe woon waaye ni ma ko waxee léegi réew mi amul problème statistique ca beneen wàll yi tamit coalition bu fës bile di coalition sàmm sa kàddu ñoom itamit nag amal nañu seen pa janoo ki ndaje di jukki itamit nag yéene gi ñu am ngir am ndam nag fa nga xam ne moo di ci assemblée nationale kàddu Anta Babacar Ngom lañu ñu cee teewlu. ñun dañoo déglu askan bi ñun dañoo topp bëgg-bëggu askan bi ñu booloo def benn say ñu tuddee suñu bopp la coalition sàmm sa kàddu ndaxte. mii fi toog te sànq wax nañ ko ñun ñëpp ku ci nekk ci yéen maa leen koy laaj tàllal leen seen loxo parce que suñuy loxo dafa set wecc monsieur le maire tàmbalil Kabdine Gueye tàmbalil ça c'est la représentation de la relève et de la nouvelle génération de la politique sénégalaise mbooloo ànd ak ñoo xamante ne depuis ay années ñi ngi ci politique sénégalaise bi di ci liggéey liggéey bu mucc ayib te ba léegi mosoo leen dégg monsieur le maire Barthélémy Dias am na alal bu ñu ko fii ay ndaw a fi nekk fii ay liggéeykat a fi nekk ambition boo xamante ne dañ ko am ak objectif bu ñu war a relever pour le peuple sénégalais dañoo booloo ànd gerte sénégalais dañoo sonn ci ñàkk sàmmoog seen kàddu li fi mooy dafa am nguur fi nekk bëgg nekk ci wax waxeet te loolu ko nawuñu ko li fi xew mooy dafa am nguur gi fi nekk boo xam ne ñeme na jël kayit bind signé bu ëllëgee mu ne ñu naxee mbaay dama leen doon naan fii kuy aay newu fi fii liggéey lañu bëgg ndax ñu mën liggéeyal sénégalais yi. Abdoulaye Sylla nag vision Sénégal meilleur moom itamit nag mu amaloon ba ndaje di wax it tamit nag la mu bëgg ca pincu ndaw réew mi di xamle it tamit ne moom ba muy tuut tànk la tàmbalee xalaat lëgëm bu jaar yoon kàddoom lañu cay teewlu. ci jongante yi présidentielle yi weesu dama amoon yéene bokk ci ñu def lépp. pour suñuy moyen waxtaan ak suñuy mbokk suñuy xarit suñu am di jàmm waane ñi fi jóge tegal ñu ay ndëgg sërëx yoo xam ne teguñ ko fenn daal di jël écarté mais ñu jàpp ne xëy na loolu la suñu borom dogal ñuy gëm ko nangu dogalu borom bi far yàlla def ñu tas assemblée bi war a dëgmal ci élection yu bees mais ma bëgg a xamal mbooloo mi ak ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ñun di liggéey que assemblée nationale bi buñ ko xeeb assemblée nationale bi mun naa wax ne mooy deuxième tour élection présidentielle ñu jàppee ko noonu gëme ko noonu te fas yéene te demee noonu ñu fexe ba bu bis ba ñu jox ñu majorité à l' assemblée nationale ñu wan gaa yi ne leen liggéey nit wax nañ ne liggéey da koy jàng waaye da nga ciy am expérience loolu laa gëm te di ko bantu di ko wax saay su nekk may seedeel mbooloo mi ne man ba ma amee fukki at ak benn fukki at ak benn laa wax nekk xale bu ndaw laa xalaat doon tëdd saay su ma tëddee guddi bu nit ñi di nelaw man damay toog di gént di xalaat di xalaat ci sama ëllëg fan laa bëgg a dem lan laa bëgg a doon te boobu fukki at ak benn kese laa danaa toog ñaari waxtu di xalaat sama ëllëg nan lay def ba yegg fi ma bëgg a jëm ma mës am benn ambition mooy ambition ban ambition nekk loolu moom mës a nekk sama mébét loolu laa mës a saa saay su ma tëddee moom laay xalaat mu nekk sama objectif mu am lu bëri lu mu laaj ay sacrifice yu dul jeex ut ay référence pour xam nan ngay def pour yegg ci yoon boobu xabaar yi bitim réew xibaaru biti réew yi Alioune Badara Diop maa ngi lay dalal. ziar la jaajëfal lu baax a baax soxna Mariama ci xibaar yi bitim réew ko doore ca réew bu Mali nag wax ci bilan bi nga xamante moo ëmb li leen di inondation yi nga xamante jot nañ ko fa nemmeeku nag ca réew bu Mali ñu gis ne nag mbir ma nag mu ngi gën di wëlle ñaay ndax nag jot nañ nemmeeku toll nag juróom-ñett fukk ak ñeent doomu aadama yoo xamante jamono toll na ñàkk nañ seen bakkan nag ci ndox mu bari nga xamante nemmeeku nañ ko foofu ca réew bu Mali nag ginnaaw bi nga xamante ni jot nañ nemmeeku benn communiqué boo xamante ni nag ñu yor comité bi di interministériel bi wàllum crise et des catastrophes foofu ci réew bu mel ni jot ko publier nag ñu gis ne ne jamono toll lu toll nag ñetti téeméer ak juróom fukki junni doomu aadama yoo xamante ni nag jamono toll ñu ngi nekk si jànkonteel ay jafe-jafe yu métti ñeel li nga xam wàllum inondation yi nga xam ne jamono toll ñu ngi ko nemeeku nag foofu ci réew bu Mali ci noonu jone gis nag ni ñi nga xam ne ñooy wàllum météo foofu ci réew bu Mali nag ñu annoncé nii foofu ci réew bu Mali nag taw yi moom des na kon nag mu des na xaare nag yeneen i taw foofu ci réew bu Mali fii ak diir xabaar yi bitim réew xeex ak jàngoro bi nag di sibiru nag ci àdduna wërgal képp rawatina ci réew Afrique yi la nag lii nag doon na xeex bi nga xamante ni nag kuréel gi di OMS di organisation mondiale de la santé nag jot na ko def nag liggéey bi nga xamante ci liggéey bu a gi di OMS di organisation organisation mondiale de la santé jot ko def ñu fësal ne waxtu bi ñu toll foofu ci réew Égypte moom sibiru moom jógee na fa. xabaar bitim réew jeexale xibaari bitim réew si faatub ki nga xam moo di Fethullah Gülen moom leen nag doonoon opposant ki nga xam moo di Recep Tayyip Erdogan foofu ci réew bi turc ginnaaw na yéen ci tuuma yoo xamante goon nañ ko su ndodoom nag ñeel li nga xam wàllum tentative de coup d'état foofu ci bi turc nag ci atub 2016 moom leen nag di Fethullah Gülen moom leen nag jot na faatu ni ngi démb ci altine gi li ci bi muy am nag juróom-ñetti fukki at ak ñett foofu ci réew moo moo gënoon a fës nag ci làngum politique gi xibaar yi mel na ñu ko fësal ni ngeen di démb nag ci altine gi ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre ci télévision république bu Turquie. xabaar yi bitim réew. jaajëfal la sant la bu baax a baax soxna Mariama fii la ñam ci xibaar bitim réew yi yàlla mi borom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla ñi may jàmm jàngeen jëf. xibaaru tàggat yaram yi Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Mariama Ba maa ngi lay fay te ni mbokki auditeurs yi ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañ koy dooree ak euh, tournoi UFOA A bi dina am nag euh, mujjantal gi ndax Guinée Bissau ak euh, seexaale woon mujj nañoo duggaat ci li nga xam te ni moom mooy tournoi bi ni mel Guinée nag moom dañu ko dàq ndax fraude sur l'âge bi dañu ko dëggal wax nañu sax ne compétition bi talaata tey ci lay door foofu ca Thiès ak Sénégal Libéria bu ñeenti waxtu. jotee groupe yi nag euh, dañ ko mujj dëggal poule A bi rek euh, moo nar a am euh, ñetti dëkk muy Sénégal Libéria ak Gambie poule B bi moom dafay des di nekk Mali Sierra Leone Mauritanie ak Guinée Bissau jóge ci terrain yi dem ca waax yi waxtaanee li nga xam te ni moom mooy Coupe d'Afrique des Nations beach soccer Sénégal nag ak Mozambique ñooy xëccoo fu mu toll nii toogu bu njëkk bi ginnaaw bi nga xamante ni Mauritanie démb Mozambique doo ko daan ba demee ci ci tëg dóor yi ci temps réglementaire yi nag ñaari équipe yi ku nekk ñetti bal nga dugal sa morom fu mu toll nii nag réewum Égypte euh, ak Maroc ñoom ñoo amagum seen qualification. Ligue des champions ñetteelu bëccëg big nag tey jii lay dooraat bu ñeenti waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom Monaco mooy dalal étoile rouge Belgrade AC Milan di dalal club Bruges ci boobu lay waxtu Arsenal di dalal Shakhtar Donetsk bu juróom-ñaari waxtu jotee Juventus bu Turin di dalal ak euh, Stuttgart Sporting Portugal bu juróom-ñaari waxtu jotee Real Madrid euh, ak Borussia Dortmund ñoo mujjoon a def final bi revanche lay doon bu juróom-ñaari waxtu jotee lay doon Paris Saint-Germain di laaleeg PSV Eindhoven bu juróom-ñaari waxtu jotee Gérone di laaleeg Slovan euh, Aston Villa di laale ak euh, ñii di waa Bologne. basket la ñuy waxtaanee ak tournoi montée D1 bi ci góor ñi quart de finale yi nag xam nañu affiche yi tey ji lay door sax talaata ji ca stade Marius Ndiaye bu ñaari waxtu jotee fukki simili ak euh, juróom euh, Cefamad moo laale ak euh, GNBC bu ñeenti waxtu jotee Kébémer basket club moo laale ak Espoir basket club bu juróomi waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom AS Police moo laale ak RS Yoff bu 18 h jotee ki daan diggante Sobak FC moo laale ak Stade Mbour loolu nag ci tournoi basket monté ci division bi lay doon lamb ci li nga xam te ni moom mooy présidence CNG bi nag kii di jëriñ jëwriñ gi ñu ko dénk di wàllu tàggat yaram ak ndaw ñi ak aada di Khady Diène Gaye ginnaaw bi nga xam te ni neen def na dépouillement bi nag bañ jox shortlist bi nag xam na fu mu toll nii des ci moom mu tànn nag ki nar a jiite li nga xam te ni moom mooy euh, lamb ji fii ci Sénégal jeexale ko ak latéral gauche bu Galatasaray bi di Ismail Jacob moom nag euh, dina sori terrain yi lu toll ci euh, benn weer li ko waral nag moom mooy ab gaañu gaañu bu mu amee ci show janvier bi nag génn na si ñaar fukkeelu simi simili ak ñett ci seen ndam li ñu am Galatasaray ci euh, kanamu Atanaspor samedi gi ñu génn ma kook Mariama Ba li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat jërëm yi caa ngeen li ci leen bikum Amadou Ba fa tontu tontu yu saf sàpp Ousmane Sonko mi ko tuumaloon yor ay milliards xalal ju du xajju jeex bu jaaru ci yoon démb fa xamal janook taskatu xibaar yi yéene kaay yu bëri fa ñoo dikkaat ci tontu ak weddi Amadou Ba ya yow seetal le quotidien yéene kaay ne Amadou Ba fa contre attaque fa wax ne man musuñu maa képp ci benn rapport nag buy wane na faa tappale sàcc alalu réew mi loolu musta am Ousmane Sonko nag jamono bi ma tuumal ne faa yor xalal ju bare tappale lu ma la mënta wax mooy fa wax na diggante 2019 ba 2023 la te diggante at yooyu booba fekk na ma nekkuma jëwriñ ju ñu dee kopparu réew mi te man bi may jógee trésor public faa fa bàyyi 270 milliards yaa ngi ca lii yéen a kaay fa caa yokk ne projet Sénégal 2050 ponk ya ca gën a bëri surtout ñett axe ya ca plan Sénégal émergent lañ ko jëlee te plan Sénégal 2050 bii mënta suqali réew mi faa leen koy wax te mooy yéen a kaay ne Ba kay la ko naqar yëpp fa koo wax fa leeral tuuma yi ko Sonko doon tuumal nee na daraa ca amul réew mi yéen a kaay ne Amadou Ba kay nga direct na ko nam waxee moo leer fa fomp lépp ba mu set wecc la dépêche yéen kaay na ko moom kay fa sang boppam raxas boppam ba mu set wecc ak ndox mu set ci lépp luñ koy tuumaal nee na dara amu ca laas yéen a kaay ne Amadou Ba kay fa génne ay wexam gàjj Sonko démb ba mu xool benn place indépendant yéen a kaay ne moom kay xamul lu ko baal le quotidien yéen a kaay ne nguur gi kat fa ko doon attaqué rek moo tax démb fa yéeg ca géew ba kurpañe naaw source ay yéen kaay ne Amadou Ba kay wax na ko yow Sonko menace yi ngi may menacé di ma tëkku mënta tere faay dem ci gis-gis loolu yëpp yow Ousmane Sonko amoo ci benn firnde fa nga yàq sama der rek turbine yéen kaay ne Amadou Ba kay démb fa doon jàngal ay élewam muy jomaay ak Sonko fa leen wax ne man Amadou Ba formé naa tàggat naa ay inspecteur impôt domaine yu bëri jaar nañ sama loxo te yéen ñii jiite réew mi jomaay ak Sonko fay sàkku ci yéen ngeen wane li ngeen doon fayeku bi ngeen di liggéey impôt domaine su ko defee sénégalais xam le point yéen kaay ne Amadou Ba yi point acti yéen kaay ne Amadou Ba kay la mu def démb fay wane ne fi mu toll ni moo bi te fa koo kaay ne Amadou Ba kay démb xokk xuri Macky Sall fëgg kurpeñ Ousmane Sonko ba pare yëkkati musuwaar bu weex tàll ne man faa seet wecc taquma dara Ousmane Sonko na ko waaw dégg naa li nga wax Amadou Ba def nga sa conférence de presse weddi nga ne lu ma la tuumal dara du ci dëgg fa ngaa seet wecc waa léegi faa bëgg yow Amadou Ba nga ñëw toog man ma toog Sénégalais yëpp di ñu seetaan ci télé bi ay journalistes yu faru fenn toog di ñu laaj ñu def débat maag yow su boobaa faa lay a leeral ci kanam Sénégalais yi man itamit la ma lay tuumal ma wax la fa ma ko moo nekk ci dëgg ba tax yor yor a kaay ak fa nar a cuq fa nar a neex Ousmane Sonko fa dékk Amadou Ba ni ko mbër yi defee kaa ñu sëgg bëree mooy kaa ñu débat ci kanam sénégalais yi ne Walf Fadjri TV ñoom nee neen noppi nen ngir organiser débat boobu ca seen télé ba Amadou Ba ñëw toog Ousmane Sonko ñëw toog ñu leen di laaj ñuy leeral sénégalais yi vox populi ne débat ba nag fa nar a cuq fa nar a neex su boobaa lépp fay leer sénégalais xam fi dëgg gi féete libération ne ah loolu rek moo ko mën a leeral di Amadou Ba nee na sàccut yooyu yëpp Sonko waxoon fi nee na du dëgg Ousmane jàkkaarloo journaliste yi di laaj sénégalais xam fi dëgg gi féete loo rek la débat rek de 24 heures yéene kaay ne fa mel ne nag fa xew léegi ndax Jean Michel ba ñu dénk Azer moom itamit fa sàkku ci Thierno Alassane Sall mu ñëw toog ñu def débat sénégalais yëpp di dégg pour ñu leeral li ñuy wax naan tooxi doona scandale fa am Azer te dara amu fa su boobaa sénégalais xam nag li ñu xam mooy Macky Sall moom ak Karim Wade pare wu ñoo ñëw sax Sénégal doon ci ay jamono muy inspecteur impôt domaine boobu ñuy wax jibi xam nga fa taxawal mouvement inspecteur impôt domaine yi léegi nag fa jël dogal war na ginnaaw Macky Sall Sonko lay jàppale Pastef ci wata député yi ba tey yéene kaay bi ne docteur Boubacar Sy moom i nee na lay jàppale ci wata yi keneen ku aw yoonu jàppale Pastef ci wata yi du kenn ku may Déthié aay waa loolu nu mën a nekkee Déthié Fall coalition sàmm sa kàddu fa la Fall fa war a jàkkaarloog sénégalais wax lan moo tax mu seeti Sonko lañ waxtaan ak ak na yëfee demee suba ci àllarba ji ci lay amal janob taskatu xibaar yi leeral l'évidence na hée kon de Barthélemy Diaz Bougane Gueye Dany tiisuma leen mbaaw seen coalition ba fa nar a yàqu fa nar a tas ah Déthié bu bàyyee waaye na ko wër na moom Déthié Fall fa ray boppam ci wàllu politique ëllëgam ci politique yàqu na intaha c'est fini nay leer laneen lu leer ba yegg kasoog Tamba ga ginnaaw bu ba fa jël dogal jàllale ko ca kaso ga l'observateur na buggaan ngay dane nag suñu waxantee dëgg fay def loo xam ne xaru daal ci wàllu politique laa si na ko li def kay procureur bi fa wax ne loolu fa garaaw ah yow fa ngaa taxaw ab sandarma alkaati bi na la bul jàll nga na ko waxal say kilifa na leen man fay jàll far force fay dem Bakel taal oto ba romb ko jàll loolu déli yoon fa koy aaye ñu ne bi fa koy teg ay daan ñu delloo ko ca kaso ga mu tëdd wala fañ koy bàyyi mu dem ñibbi këram li ci kanam rawul ay gët turbine yéen a kaay na man nag faay wax bugaan gay dani moom ñu tëj kaso loolu fay wane na démocratie Sénégal fa deltu ginnaaw Barthélemy Dias nga xam ne démb demoon na Tamba ngir jàppale bugaan gay dani fa wax ne bugaan daal otaas la ci nguur gu bees gi si du quotidien moom fa ñoo xamal ne université bu Ndakaaru étudiant ya yëngalaat nañ de fañ doon jàppante ak takk der ya waa SAES timit fa ñoo fas yéene amal geraw ba tax yéen bi ne a ay fitna ak jàppante jëwriñ ji ñu wi nag docteur Abdourahmane Diouf fa dalal xelu waa yi na leen du yàgg dara fa ñuy wane décret jëm ci seen ñaxtu yooyu ñu ne déetewaay fa wax étudiants yi na leen fileek ñaar ba ñetti ay bés fa leen di fay seen bourse yi leer lu leer ba yegg ca nañ ja moo ne njiit réew bu Sénégal Bassirou Diomaye Faye fa xamal lancement li ñuy wax état généraux des transports publics nu ñuy fexe ba ñoŋal ko càmbar ko waxtaan amal ci assis ba saafara mbooleem jafe-jafe yi ci nekk fa faa yëkkati kàddu nag ca lancement bi moom njiit réew mi Bassirou Diomaye Faye ne nañ doxalee ci wàllu transport def fa ñu war a soppi na gis gis-gis bi mu am moom njiit réew mi ci soppi wàllu dem beeg dikk bi ñoŋal ko suqali ko El Malick Ndiaye moo yenu projet ba fas yéene koo doxal yoor yoor yéen kaay ne bokk na ci président Diomaye bëgg mooy wàññi accident yi ci yoon wi Dakar presse yéen kaay moom fa ñoo xamal ne dexu Sénégal ga nga xam ne fa sàmbara saara dugg ca kër ya nangu ko ca diiwaanu Bakel ak Matam ak yi ni mel fi mu nii diiwaanu Saint-Louis ndar fa ñoo jàq ndax fa ñuy ragal ndox ma ma dugg ci point acti yow seetal benn professeur mathématique jàngalekat fañ koo fekk mu xaru ray boppam faatu ñàkk kanam ginnaaw bu mu takkee boppam ci ak buum bay lange yëf yaa nga amee ca diiwaanu Sédhiou waa ma ne fa ngaa def erreur fa ngaa juum jafe-jafe boo mën a am ci àdduna moo xam naqar moo xam gàcce warta tax nga xaru ndax soo xaroo la tax nga xaru loolu moom du saafarawu benn ñaar fa ngay am woy wu ñaaw ndax kenn du rafetlu sa xaru gi ñett soo xeggee ca yàlla mu ne la fa lay FM juróom-ñeent fukk yi toftal benn xibaar yi ma feggoo woon ci Codou Seck keneen ci machine bi ñoo ngi leen di jaajëfal yéen ñu doon teewlu xibaar yi kàddu gi doon bàyyi ko si studio Aline eh, fii ci dëkk bu sell bi di Medina Baye ñuy ñaan rek yàlla may jàmm eh, fu ñu toog di dégg jàmm di gis jàmm mbokki cant ak ngërëm ñeen na leen way leen di ànd ak programme yu am solo yu Alfayda FM gannaaw yëgle yéegi baane seen assemblée tombu bés bi dina ñëw ñu bi ñuy ci wàllum xorom si am nañ ko rawatina foofu lay ci diwaan bu Latmingué moom la ñu fas yéene waxtaanee ci kanam tuuti lay doon jërë ngeen jëf. xibaar yi ak Mariama Ba.